alors Madiambal euh, tamit euh, euh, sànq fël lañ jóge palais de la République à la remise des cahiers de doléances ñu demoon représenté fa le patronat de de presse le le e man ak sama naataango Abdou Ndiaye de la 2STV Bamba kase évoqué na ko ci discours am la presse sénégalaise aujourd'hui vit des heures difficiles Euh, balaa boobu tamit ñu masawu no confrères du groupe Walfadjri euh, avec cet incendie bi nga xam ne dafa déclaré wu euh, dans leur locaux hier ñu leen di masawu di leen témoigner de notre de notre solidarité comme quoi rek dañoo soxla beaucoup de solidarité entre ñun de la corporation bu sa morom di jooy rek jàppal ne wan ko yërmande wan ko compassion ndax li ñuy dund ñun ñëpp xam nañu ko Euh, ñun ñëpp xam nañu les la lourdeur de la charge ce sont des investisseurs ñoo ñëw investir dans ce secteur par essence déficitaire euh, ndax passion bu ñu am ci métier bi ku ci jànkoonteel jafe-jafe rek euh, nañu ko jàppale encouragé ko et puis ensemble ñu xool les voies et les voies et voies moyens parce que bu pro bu problème amee fii rek na na na sa na sa jàpp ne tamit rëcculoo on est embarqué dans la dans le même navire donc ñuy masawu nos confrères de de de Walfadjri euh, di masawu le PDG Cheikh Niass Madiambal. jërëjëf euh, Maymouna li nga wax rafet na te loolu mooy waxi nit ku yiw te loolu aussi lañ moo war suñ diggante ñun ñëpp euh, li nga xamee ni que tegu da ci Walfadjri tey dañ koy tiislu di ko di masaw waa Walfadjri ndaxte incendie studio te perte yi fa am defe naa ni que. perte yu dina gàllankoor euh, entreprise de presse bu mën doon surtout que presse ba nga xam ne dañoo néew doole. Euh, loolu li muy wund nag mooy li nga jëkk a tàmbalee mooy néew doole ak précarité bi nga xam ni moom la groupe de presse yi dal xëy na bu fekkoon par exemple presse de presse am nañ yenn moyens yi bara am yenn capacité am infrastructure yooyu nii duna mucc ayib kon li dal Walfadjri Euh, xëy na mën na ko bañ a dal parce que tey boo xoolee Walfadjri entre 2002 ak léegi y' a quatre incendies ya nga xam ne ni que toujours ay studio ñooy lakk 2002 2008 2020 2024 loolu c' est des incendies récurrents yi ne toujours dañ naan la base au niveau électrique lay jóge kon loolu installation yi xëy na demeewul noonu waxee ñoom war nañ ci euh, gën a góorgóorlu mais loolu li muy indi rek mooy préf dafa néew doole la mu bëgg lépp pour aar boppam la mu bëgg lépp pour xay na euh, mucc mënu koo am mooy li ngeen wax ci. parce que nos installations doivent être assurées. ah ben justement assurance war na ci am système de euh, technique ba nga xamee ni aussi moom xëy na ay protection war na ci am yooyu yëpp boo amul yenn moyen yi boo am jumtuwaay doo ko mën a matal donc loolu moo tax léeg-léeg ay failles di am ba yu euh, mel noonu dañu dal euh, loolu nag mooy traduire rek état généralu média yi mooy li ngeen wax ci remise de cahier de doléances yi presse sénégalaise dafa nekk presse bu sooxee presse ba nga xam ne ni euh, soxla na ndimbal soxla na jàppale te presse dafa am solo ci am réew surtout réew mi euh, bàkkoo di bëgg a nekk réewum démocratie dama lay jox benn exemple ba xam parfois léeg-léeg dañ koy faral di fàtte médias yi nga dégg ñu am doole far jàppale avec le fonds d'appui aux médias le fonds d'aide à la presse xam nga par exemple le journal bu mel ni l'humanité fan yii ñu ngi fêté seen cent cinquante ans l'humanité ne la presse fourni le gouvernement français du leneen trente mille exemplaires lay jaay ak cinq mille euh, ak ay abonnés ak cinq mille ventes au niveau des kiosques mënu ci génn c'est l'aide à la presque qui équilibre loolu moom mooy l'humanité mooy le canard enchaîné mooy yeneen titre parce que la France sa démocratie a besoin disons de la diversité et de la pluralité des opinions te boo xoolee l'humanité c'est un journal d'un parti politique d'obédience du parti communiste français mais soxla nañu démocratie France soxla na média buy exprimer ay opinion yu mel noonu loolu réew mel ni Sénégal jéem noonu la ci jàng mais tey boo xoolee aide à la presse bi xëy na demeewul noonu léeg-léeg sax buñ koy séddalee yow ci sawal boobu léeg-léeg gedd ko sax moo lay gënal lañ lay jox mais maa ngi jël exemple par exemple aussi réew mu mel ni Maroc gis naa aide à la presse lu mu jàppale des entreprises nga xam ne man xam naa leen ñu bokk ci kuréel international bi nga xamee ni que dama koy jiite am na exemple yooyu nii dafa bari boo jëlee États-Unis xam nga réewum euh, capitalisme réewum euh, euh, moom ni mën nañu que initiative privée la ñuy encouragé mais tey bi ñu demee par exemple année yi nga xamee ne presse bi dafa am ay sooxe muy New York Times Washington Post ak yooyu yëpp mais l'État fédéral américain a mis de l'argent dans ces groupes de presse là pour les renflouer Sénégal nag boo ko defee bu la etat joxee dërëm sax ñu yaakaar ni que corruption la mais man État ñëpp ko bokk te démocratie ñëpp ko bokk kon war nañu mën a jox ay procédures légales yu leer naññ ya nga xam ni day am ay critères d'attribution de l'aide à la presse euh, wala mécanisme bu ñu mën a def ba nga xamee ne état dina mën a accompagner média amul benn réew ci àddina ba nga xam ne presse ba taxaw na fa état bi accompagner wu ko bu ñu nax suñu bopp entreprise de presse yëpp mënuñu ñoom rek waleen bàyyee à eux-mêmes mënuñu demal seen bopp concurrence bi bëri na doole ji bëri na marché marché bi parce que le secteur est saturé da xool boo jëlee tey mën nga fekk plus de quarante journaux ñuy euh, génn ci Sénégal kan moo leen di jënd y a journaux yi nga xam ne dañuy tiré à deux cent trois cent quatre cent exemples yu tiré journaux yi nga xam ne sax dañuy am une certaine notoriété euh, parce que simplement ay kii la ñu ay journaux PDF la nga ñëw ci rajo yeeg télévision yi aussi y une concurrence à la limite sauvage au point que même boo dikkoon nga am une rajo crédible une télévision crédible bëgg a def publicité di nga gis ku def dumping ba nga xamee ni que day tirer les prix de l'électricité vers le bas loolu kenn du ci mën a génn en plus de cela nga dikk am secteur économique ba nga xamee ni que c'est pas aussi dynamique c'est pas aussi porteur da ngeen di am ay pexe di dugg ci yenn imagination yi moo leen ciy génne mais kon doo ci génn donc loolu aussi vraiment c'est une. et gis nañ euh, quand il y a eu quelques remous dans dans dans dans certains organes de presse euh, des gens euh, lire ça euh, de la fin du régime de de Macky Sall. Euh, est-ce que du est-ce que la presse s'est s'est s'est remise euh, de la de la Covid bu nekkee par exemple dans le domaine de la télévision bi Covid bi amee ba tey il y a beaucoup d'entreprises du secteur de alimentaire nga xam ne ñooñu doon lañu doon porter euh, la publicité au niveau des des, des entreprises de presse ñu ci bari dañoo retiré wu les gens oublient que depuis Covid bi ba tey dafa am lu ñu topp te indi ñu ko jàngat bu tension yi fi am ba nga xam ne présidentielle bi euh, de nit ñi amuñu euh, xel bu dal ba mën a dérouler li nga xam ne moom mooy seen stratégie commerciale. loolu euh, effectivement élément ba nga xam ne expliqué na situation bi ndax Covid bi ñu koy jàll jàll nañ ci jamono yooyu nii pratiquement benn journal jaayul jaayul nit ñi nag mu mën a jënd journaux yi. publicité amatul activité yi tëj nañu entreprise bu tëj def publicité. et on pour fonctionner loolu c'est des réalités que ñun mën nañ ko euh, euh, nettali parce que dañ ko dund. Euh, da ci am beneen aussi beneen ba xam ne ni que am na ci ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi doon dund. secteur d'activité yi nga xam ne dañ amoon solo état daf leen jàppale. boo jëlee secteur bu mel ni tourisme dañu baissé même ba TVA bi. Mm. jox leen des fonds de soutien au médias yi am na ay appui yu ñu doon wax fii loo ci loo ci loo ci gis yow. dara dara muy man di sama moroom ak keneen. dara kon ça na c'est pas une question de régime de Macky man gisuma fi benn mécanisme bi defoon. di ko jox c'est le mhm. la communication qu'on a portée. Mhm. qui a donné une fois. Mhm. des des chèques de cinq millions. à part loolu gisuñu leneen. bon xëy na sa yow jot nga chèque bu bari na ñoo jotuñu ko. télévision <laughs> yi en tout cas voilà c'est vous dire. Euh, donc euh, te télévision xëy na ñoo nekkoon ñooy gën a touché cible mhm. secteur de la santé mhm. donc kon xam nga loolu aussi ndimbali bariwul woon euh, bu fekkee am na sax ci yenn organe de presse ndaxte yooyu yëpp aussi parfois aussi dans nos pays léeg-léegi dañ dul xàmmee lu ñëpp bokk ak loo moom yow bu fekk buñ la joxee cërub nguur parfois dañuy distribuer ay aide ou bien ay publicité selon la tête du client boo xoolee par exemple lu mel ne période Covid bi ngay wax am na ay journaux ya nga xam am lu ñu ci waxoon am na patron de presse yi nga xam am na ay comportement yi ci amoon ci comment la gestion des fonds Covid représailles am na ci ba nga xam ne ñooñu ñu jox ay entreprise de am na ñoo ah yëpp am na ci donc yooyu yëpp c'est des réalités que nous avons vécu loolu da lay wunal rek ne la que xëy na ñun parfois dañuy wuti démocratie di ko xëccoo waaye am intégré gu ñu ni que nangu bàyyi keneen ki mu am xalaatam am opinion wala wax li mu xalaat euh, bu même dëppoowul ak li nga bëgg sax yow ñun suñu. culture démocratique ñu ci bari nanguwuñu loolu loolu nag aussi dañu ko war a travailler. alors euh, introduire nañu en tout cas une demande euh, d'audience euh, mm -hmm. le patronat euh, de presse euh, introduire nañu une demande d'audience auprès de son excellence le président de la République Bassirou Diomaye euh, Faye je pense que il urge mu am toogaay pour sécuriser d'abord li nga xam ne moom la fi Macky Sall defoon avec ses ses l'amnistie fiscale Euh, mais tamit jéem a xool nan la ñuy enjamber les problèmes euh, à l'avenir euh, yaakaar naan dina accorder audience boobu parce que bu fekkee jaboote na ñëpp te secteur presse ku ne xam na contribution ci fonctionnement institution démocratique du Sénégal def naan du taqam lu boobu demande d'audience mais aussi bu ngeen fa demee bi yoon na ngeen sensé doxalin bi ngeen gisanteeg Macky Sall mu may leen dette fiscale mayu leen dara finalement parce que li mu leen may fayu leen ko xam nga boo defee effacé naa dette fiscale day mel da ngeen amoon xaalis bu ñu leen jox wala bu ngeen recouvrer versé wu leen ko. mais kenn ci yéen dette fiscale boobu c' est zéro franc. kenn recouvré wul. kenn recouvré wul dara kon mayu leen dara. kenn effet d' annonce la xëy na nguur gi mën koo bàkkoo di effacé naa dette fiscale mais yéen sentiru leen effacement dette fiscale boobu benn entreprise de presse mënu fi nekk à jour de sa fiscalité yow xam nga ko man xam naa ñu ñuy dégg xam nañ ko kilifa yi seen bopp ñoo ñu gën a xam. kon Ablaye Wade daan na ko fi wax Macky Sall di ko fi wax dette fiscale man ressentir wu ma ko yow ressentir ko par contre fi nga xam ne war nga fi insister et ça j'insiste sur ça. Mm. c'est les cotisations sociales pour les travailleurs ñun ñëpp kenn cotisé wul kenn nekku ci à jour léeg-léeg ñu ciy mais nekkuñu à jour gis am travailleur ba nga xam ne dina dem à la cotisation matul te loolu dañ ko war a bàyyi xel foofu bu aide amee foofu a a. suppléer foofu la war a mën a agir te loolu dama dama dul dégg syndicat travailleurs yi di ko di ko revendiquer mais yéen patronat bi bu ngeen dematee kilifa yi wax leen leen que ardoise ñu am IPRES ak caisse sécurité sociale wala surtout IPRES nañ ko jéem a solde su ko defee travailleur bi nga xam ne ni hmm. day liggéey toute une carrière bu demee retraite mu dem tranquillement avec une retraite pleine mais loolu defe naa ni que wax dëgg yàlla euh, bu fekkee kilifa yi ñu ngi may dégg muy ministère bi yore ministère de la communication ak ñu yore euh, euh, mbiru retraite ak ak premier ministre ak président de la république luñ ci dimbalee travailleur de presse yi doyul mhm.